asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen béggee di leen jox seen wàccuwaay ñun ñu ngi fii Tiwaawan dëkk Seex Seydil Xaaji Malick radiallahu anhuma waaw ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax di kontaan ci gàmm gi bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw nit ñi ñu ngi ñëw ñu ngi préparé wu bu baax a baax a baax tamit ñu ngi leen di ñaax yéen mbokk taalibe yi nga xam ne yéenay ñëw ci gàmm gi képp kuy ñëw lépp lu sëriñ bi digle nañ ko def nañ ko yiwal sellal ko waaw ndax borom bis bi moo laaj loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa salaam ñu ngi invité nag ñëpp ci àdduna bi ñëpp kuy ñëw na ko yiwal ba mu yiw waaw teg ko li bis bi laaj li borom guddi gi laaj waaw lépp lu luñ fi ñaan nag yàlla nañ ko yàlla nangul ci barke yonent bi waaw sallallahu alayhi wa ñu ngi invité ñëpp waaw népp ñëpp ñëw waaw jigéen ñi nañu muuru góor ñi nañ ko sellal ba mu sell ndax fi ñuy ñëw dëkku leer dëkku Seex Seydi Xaaji Maalik la pour ñu ñëw màggalal ko guddi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu def ko gàmmu mu war a am samedi insha allahu taala fépp fu waay doomu aadama nekk waaw di jullit ñu ngi lay woo ci guddi gi di jaay rasulillah sallallahu alayhi ñu ngi woo ñëpp waaw waaw mi ngi noonu daal. Euh, mhm.

sëriñ bi keroog dégg naa ko ci burdu bi mu wax ni képp ku nar a ñëw gàmmu nar a indi deux roues na ko bàyyi nga jël oto parce que loolu moo gën parce que gis nañ ci gàmm ci màggal gi nii accident yu bari buñ ko xoolee ay deux roues la te loolu tamit mën naa ñàkk ci waawoon soriwul yonent bi moo woote képp kuy ñëw na nga jël oto waaw sañsa rafet dox ndànk ñëw njànk ñu dalal la ci jàmm loolu daal moo gën chauffeur si tamit nañu wàññi paas yi te xam ni guddi yonent bi la lu ci waay def balaa déwén incha allahu taala yàlla da la koy yokkal chauffeur si nañu wàññi paas yi te daw ndànk ti nelaw tamit ba doyal woon sori wul nit ku ci nekk sa wërsëg ngay jël nañ def ndànk taximan jakartaa yi nag tamit waaw ñun duñu def lu dul sant leen gërëm leen parce que ñi ngi def seen liggéey ñoom bu ñu amul woon ci réew mi dina xaw a doy waar quoi wax dëgg yàlla parce que course yi ni ñu koy doxee di dem ak a ñëw wax dëgg yàlla transport boobu moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax di wax tamit gars yi nañ leen bàyyi ñu liggéey ci gàmmu gi parce que maa ngi doon dégg ñu naan jóob euh, euh, si bu gàmmu gi desee ñaari fan benn moto dootul daw loolu tamit bu dañ cee war a waxtaan ak moom bu baax a baax parce que taximan jakarta yi dawuñu lu dul dépense gàmmu gi moo tax ñoom ñuy rey seen bopp ndax koo ci gis tamit responsable boo ñëwee këram da nga koy fekk mu am jabar am doom di. si kaw euh, loolu nga wax. Mhm. ñoom bu ñu interdit wala ñu ak seen limite. jakartaay. mais est ay def loolu. Mhm. ça passe mhm. loolu moom waxtaan amu ci parce que ñoom bu ñu xëyee bi ñu jegee syndicat bi bu ñu xëyee dégg ni Diop si lii la wax ñoom tamit génn nañ def benn def benn interview xaw ma ndax ba xam Diop si jot na ci xaw ma ba xam jotu ci ñun ñi nga xam ne Tivaouane lañ dëkk doon ay taximaan ñun bu ñu dawee ba tëccel burdu dañuy dem suñu kër ndax dañoo am ay gan ñeneen ñi fi ñëw di liggéey nag parce que Diop si dani alentour grande mosquée bi risque la pour jagartaa di fi daw waaw risque la pour Jakarta di fi daw ñun tamit nangul nañ ko loolu parce que alentour bi dina xat-xat goo xam ni monde moo fiy daje. monde bi moo fiy daje loolu tamit nangul nañ ko ko mais li wër Tiwaawan ak li wër yeneen côté yi Jakarta yi nan leen fa bàyyi ñu daw alentouru jumaa ji daal kuy nit te gëm yonent bi boo yoree deux roues wax nañ la bu fa jaar bul fa jaar waaw loolu daal buñ ko defee daal dinañ am lu ñu gënal dinañ am lu ñu gënal quoi vraiment. dañ def benn constat si année bi. Mhm. génération bi nga xamante ne génération Fouti lañ koy wax. Mhm. léegi maanaam liy liy caaxaan yi. Mhm. wàññi leen moo fay nekk. luy ay appartement. chicha jël ay def ndaw moo yori dëkk. tey ndax am ngeen si matukaay boo xamante ne xaaroo sa question bi dama koy rafet lu bu baax a baax a baax. gis nga Tiwaawoon dëkk Cheikh Seydi Hadji Malick la gis nga ku fi ñëw di fi def naka su dul noonu xamal ni kii bokkul ci xeetu yonent yàlla Muhammad Tiwaawoon nag dëkku diine la lii nga fi wax sax appartement sax man yu ma fi gis ay appartement kilifa lay doon appartement man bu ma ko déggee sax man bi ma daan dégg appartement man dama doon dama doon xaw a jaaxle sax naka appartement man bi ma ko gëstoo naka appartement mooy ñi nga xam ne dañoo am fu ñu dëkkul ñu luwee leen appartement ñu nekk fa di fay par weer man loolu laa jàpp appartement mais ku fi ñëw di def naka su dul noonu kooku gëmul yonent yàlla Muhammad ndax borom guddi gi wootewul loolu képp ku koy def maa ngi lay ñaan nga bàyyi ko Tiwaawan du loolu gàmmu lañ fi wootee nga ñëw ñu màggal guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun loolu lañ bëgg appartement ku fi ñëw di tux chacha ku fi ñëw di lii xanaa nit lu mu kon kon kon boo ñëwee ci gàmm war nga war a mën a gëm ni yonent yàlla Muhammad moom la yàlla yónni nga bañ a def naka sudul noonu parce que lu fi waay def ëllëg dañ la koy fay képp ku ñëw pour caaxaan tax a jóg wax dëgg yàlla mën ngaa bañ a si ndax fii gàmmu moo fi am dañuy gàmm dañuy jàng alxuraan dañuy firi waaw dañuy waxtaanee mag ñu baax ñi waxtaanee saxaaba yi képp keneen ko am leneen looy indi demal nga yóbbu ko fële ca xaj amul ci waawan waaw wax dëgg yàlla amul ci jërëjëf